Euh, monsieur le président monsieur les ministres chers collègues ñu ngi nuyu seen collaborateurs yëpp euh, bésu tey bii nag bés bu mag la li tax ñu ne bés bu mag la dafa nekk bés boo xamante ne dafa nekk bés bu rëy ci démocratie Sénégal nekk tamit bés bu rëy ci taxawu Sénégal mais nekk aussi bés bu rëy tamit ci le parti démocratique sénégalais. parce que projet de loi bi nga xamante ne indi nañ ko fii député yi càmbar ko war ko voté pour que ñii nga xamante ne nii dañ leen tooñoon ñu mën leen a delloo seen àq ak seen yelleef. pour que ñu mën a bokk ci vingt cinq février yi di ñëw incha allah bu ci yàlla àndee euh, loolu nag li ko waral mooy dialogue parce que dialogue suñu borom moo ko santaane ndax yàlla moo ne woon yontu bi sallallahu alayhi wasallam wa shawirhum fil amri de dialoguer ak ñoom ndax ku ne xam na ne alxuraan bu wàccaan saaba yi dañ koy naan dañu naan yontu bi sallallahu alayhi bu fekkente ne waxu yàlla la nañu ko jëfee mais bu fekkente ne sa wax la nañu ko waxtaanee kon dialogue suñu borom moo ko santaane tey nag moo waral tey jii lii mën a am réew nag dañu koy pencoo il faut ñuy waxtaanee réew bu ñu bëggee réew mi jëm kanam looloo waral nag tey jii projet de loi bi dugg assemblée ñu ciy kontaan bu baax a baax a baax ndaxte mooy mën a tax sunu président xalifa Ababacar Sall mën a nekk candidat le 25 février incha allah xalifa nag ba ko yàlla tegee nattu bi mu nangu ko ndaxte dafa nekk jullit axan te yàlla dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas biir wa maa sabruka illaa billaah te nag xalifa noonu la ko defee daf ko muñ te yàlla rek tax te ku xam xalifa Sall xam ko ci homme d'état ku xam xalifa Sall xam ko ci dialogue ku xam xalifa Sall xam ko ci yar xam ko ci am teggin mooy nit boo xamante ne nit mën naa taxaw fii di ko seedeel te kenn du ne aacam kenn du weddi parce que xale yu ndaw yi sax boo leen laajee kuy xalifa Ababacar Sall dinañ la wax kan mooy xalifa Ababacar Sall nguur nag yàllaa koy joxe ndax xulillahumma tuxtil mulka man tashaau wa tanziwul mulka mi man tashaau wa tuhizzu man tashaau wa tuzillu man tashaa biyadika alxayr innaka ala kulli shay'in xadir tuliju leyla fi nahaari wa tuliju nahaara fi leyli wa tuxriju lxaya min almayti wa tuxriju lxaya min almayti wa tarzuqu ko yàlla def merci merci chers asalaamaaleykum monsieur le monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu seen collaborateurs yi nga xamante ni si ñoom ngeen àndal di ñëw rek ci projet de loi bi nga xamante ni si moom la ñu indil ñu war ci discuter euh, avant loolu rek juste dama gis ni bëri bu ñu ñëwee dañuy wax seen fierté bi nga xamante ni si moom lañu am pour participer au jalo mais nous aussi nous sommes tellement fiers de ne pas pris part à ce dialogue parce que du ñu jaloge loo xamante ni si dañuy ñëw di ñu tegal fekkal ci suñu bopp dañu kaay leen ñu par force on va pas le faire et on l'a pas fait et on est fier de ne pas le faire projet de loi bi da ngeen ne am na loo xam ne moom moo ko jiitu c'est-à-dire c'était consensuel code consensuel moom moo ko juróon code consensuel bi bi mu koy teg en 1992 c'était pour na ñëpp bokk c'est-à-dire que ñu élargir li nga xamante ne si moom mooy participation bi mais kan moo ko dindi en 2018 c'était vous avec le régime du président Macky Sall parce que lan y avait des opposants à l'époque ñoo xamante ne si jàpp ngeen ne bu ñu bokkee dafa am loo xamante ne si dañ leen koy yàqal tey ngeen jël ñooñu noonu génnee leen ci liste électoral yi waa tey nag yéen ko defoon yéen a ñëwaat ne dañ leen di réintégrer ñun amuñ ci benn problème parce que sa a toujours été le combat de la coalition Yewwi Askan Wi dans la charte de Yewwi lu ñu wax dañ ne Yewwi ci point 10 bi plus précisément ci point B dañuy fexe qu'il y ait une élection inclusive qu'il y ait la participation de tous aujourd'hui vous essayez de régler une injustice que vous avez vous-même commise yéen a ko commettre ngeen di ko ñëw tey pour dindi ko mais vous ne réglez pas une injustice par une autre injustice te loolu moo waral ngeen war a revisiter li nga xamante ne si moom mooy article L57 pour qu'il y ait la participation de tous parce que élection la ñu woote élection inclusive tey jii nii ñi ngi wax yeewi askan wi yeewi askan wi en mars 2023 moo njëkk a dugal li nga xamante ne si moom mooy proposition de loi pour lan pour ñu fexe ba ñi war a bokk en l'occurrence la président Khalifa Ababacar Sall ak en l'occurrence Karim Wade ñu mën a bokk kon ñooñu tey du ñu ñëw le président Karim Wade comme vous voulez boobu ba léegi ñu ciy dox di ci wax loolu moo jiitu dialogue kon ñooñu am na loo xamante ne si def nañ ko yéen leen génnee woon yéen a ne da ngeen leen di réintégrer on n'a pas de problème mais éviter de régler une injustice par une autre injustice. beneen bi nga xamante ne si moom laay wax monsieur le euh, ministre Sénégal yëpp jël nañ ko résumer ko autour de la politique parce que lan c'est le bon vouloir du président le sacré champion le sacré. koo xamante ne si moom moo yor lépp tous les pouvoirs sa ce moom li ko neex rek loolu la ñuy def tey jii nii les gens sont entrés les jeunes plus précisément de mourir dans la mer barki Dembo Ndiaye fii lañ jël benn xale liir benn hôpital ñu jël xale bi dugal ko ci machine à laver parce que liir la gisuñ ko ce sont des questions yoo xamante c'est tellement important ñu war ci discuter war ci apporter des solutions mais vous résumez tout le Sénégal ci code électoral ci mbiru justice monsieur le ministre yëg nga ne kilo soble bi doon jar trois cent cinquante ba démb démb mu ngi jar mille deux cent francs Macky Sall dafa woote yoonu yokkute yokkute à travers les prix yokkute à travers li nga xamante ne si moom mooy dund sénégalais nit ñi ñu ngi dee dans leur chair vous avez des choses beaucoup plus importantes yoo xamante ne si war ngeen ci dox code bi kenn bañu ko parce que lu normal la mais bu ngeen koy def nañu verrouiller li nga xamante ne si moom mooy li Sénégal moom te mooy pour pour une première fois dans l'histoire politique du Sénégal pour une première fois dans l'histoire politique du Sénégal que l'on essaie de verrouiller notre code électoral ba a jox le président de la République tey jii tous les pouvoirs ëllëg bu ñëwee tey ku ko neex mooy bokk ku ko naqari du bokk c'est des choses à corriger ce pays mérite beaucoup mieux plus que ce qui est de se passer ma ñëw ci beneen le président Ousmane Sonko acharnement yéen a ko def acharnement la ci kawam yéen a ko doxee ba tey jii nii mu am loo xamante ne si am dal na ko tey comment vous pouvez vous acharner sur une personne ngeen inculper ko le même jour tëj ko ñëw dana ngeen dissoudre parti on peut dissoudre le parti Pastef comme vous voulez vous pouvez l'inculquer l'inculper du moins mais il y a une seule chose que vous ne pouvez pas te mooy ngeen génnee ko ci xolu sénégalais parce que sénégalais ñoo am koo xamante ne si teg nañ ko yéen la yàlla jox nguur le temps lu leen fi dese six mois

maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di la ñaanal yal na jàll jàmm gën a sax fii ci assemblée nationale bi monsieur le ministre de l'intérieur maa ngi lay nuyu yow ak euh, ñi nga àndal ñëpp di nuyu monsieur le ministre du travail di gërëm bu baax a baax di nuyu suñu collègue député yi monsieur le ministre dama lay féliciter yow ak président Macky Sall mi nga xam ne tey gannaaw yàlla moo la dénk sécurité sénégalais yi waaye it di félicité les forces de défence et de sécurité yaakaar naa ne bés yi passé ku leen gis xam ne taxawaay bi nga xam ne moom la leen sénégalais yi dénk yéen a ngi koy doxal bu baax a baax kon yal na leen yàlla gën a jàppale ngir Sénégal gën a am jàmm monsieur le ministre ñun dañuy gërëm président Macky Sall mi nga xam ne ni moo initié dialogue tey boo xoolee Afrique réew yi yépp lu leen Sénégal rawee mooy dialogue fu jafe-jafe amee dialogue dafa nekk ëtt boo xam ne nii ci lañu mën a dajee waxtaan ngir gën a ñoŋal suñu démocratie wala ngir gën a indi jàmm ci suñu réew mi kon gàcce ngaalaama ki nga xam ne nii ginnaaw yàlla dafa déglu Sénégalais yi bu baax a baax mu xam ne dialogue am na lu mën a soppi ci réew mi mu woote ko waaye gàcce ngaalaama aussi tous les forces vives de la nation yi nga xam ne ni tey ñoo wuy ji le président Macky Sall ñu tënk ay poñ yu toll fukki poñ ak ñaar tey am ci loo xam ne ni tey ñu indi ko fii ci assemblée nationale bi te yaakaar naa ne am na jeexit tey boo xoolee assemblée bi ñi muy doxee xam nga ne dialogue am na solo ci réew kon dañ ciy sant yàlla bu baax di wax ne dialogue bi am na solo mais loi bi aussi am na solo solo boo xam ne nii ba tax na incha allah rabbi comme ni ñu ko waxee ñun ñëpp dinañ ko voté à l'unanimité tey ñi nga xam ne ni Sénégal moo leen ñor ñëpp uyu dinañ dialogue ba lëdd ju juróote so dialogue ba député yi nga xam ne ni Sénégal moo leen ñor jël nañ engagement voté li nga xam ne nii moom lañ indi fii tey ndaxte dafa nekkul am solo may wax ne ànd kóllëre daf caa am solo sàmm kóllëre am na solo de tey boo xoolee xalifa sàll li mu liggéey ci coalition Yewwi Askan nga xool Karim wadd ñi ànd ak moom li ñu liggéey ci intercoalition bi kon tey su fekkee ne am na poñ boo xam ne dañ koo indi mu gën a jogal démocratie gën leen a mën a boole ci mbir mi man damay naqarlu bu baax a baax ña nga xam ne ñoo waroon a taxaw taxaw ci gën leen a jàppale di dugal ay recours di ay galgal pour nasaxal loolu loolu nag day firndeel ne nit sooy àndal da ngay ànd ak nit ku am kóllëre kóllëre ginnaaw lay féetoo mais kenn du ko jiital tey ñooñu bu ñu xalaatoon loolu benn galgal duñ ko dugal di dugal ci loi bi recours ba muy indil lu mel nii kon dama leen di wax yéen na ngeen xam ña ngeen àndaloon loolu dina tax ngeen gën a defaraat seen toogaay xam fa ngeen jëm soo ëllëgee ngeen xam ñu ngeen di àndal yal na yàlla gën a jàmm indi jàmm ci Sénégal te incha allahu Sénégal gi réewum jàmm lay doon jàmm rek la am kenn munu fee indi safaan ba ñoo ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jërë ngeen jëf merci Mansour Kabé vous avez la parole Ibrahima Baba Sall le suivant